jërëjëf ñoo ngi leen di nuyu d'abord di leen ziar ci bis tedd bi dañoo tollu ci war a tàbbi nag ci liggéey bi wax ak askan wi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 Euh, nguur gi def na ay pexeem pexe yi wul tay yéen ñep sédé ngeen ni at yi yëpp nguur gi mu ngi ci ay pexé pour fagagal ay adversaire am ci opposition bi pexe yoyu yenn yi justice bi le jëfëndiko pour écarter leen téye yenn yi mu utiliser parrainage bi yenn yi mu utiliser même technologie bi ak administration bi pour fagagal.